minha bokk na ci xeeti teggin yi at tawaadu toroxlu bokk na ci xeeti teggin yi jaam bi bañ yëg dara ci darajay boppam toroxlu woyoflu wàcce boppam ba mu suufee suufee te yàlla rekk tax kenn ku ne nag ca na mu xamee boppam ak na mu xamee boroomam noona la ak woyofloom di tollu ku xam boppam dëgg-dëgg rek dana woyofal boppam te yàlla tax ba àgg ci tolluwaay boo xam ne dana yéem ña xamut seen bopp xamuñu seen boroom moo tax am na gaay yu baax a baax yoo xam ne ñàggu ñàkk gis seen bopp taxoon na bu leen nee ñaanal ma dañuy jooy daldi tiit jàpp ne ñoom lu dal nit ñi sax ci xeeti tawat ak balaak bekkoor ñoom seenu mbon moo tax yàlla wàcce loola ci kaw suuf ba mu dal nit ña kon ñàkk ji seen bopp day àgg ci gaafal seen bopp ba defee ne lu xew lu ne ñoom ñooy sabab sa ñoo tax yàlla wàcce loola ci kaw jaami yàlla yi bokk na ci màndarga yi toroxlu googu nag jëmm ji àgg ci suñu ko sikkalee wàññi dara jaam du ko taxa mer bu ñu ko ŋàññoon mbaa ñu xas ko tuumaal ko ci bakkaar yu réy réyit du tax mu naqari ko bokk na ci màndarga yi ku am toroxlu googu du bëgg nit ñi teg ko fenn mooy du bëgg am benn wàccuwaay ci xolub benn nit nee nañu asamaan dafa damu ci kaw suuf ne ko man maa nga ci kaw te it maay dëkkuwaayu malaaka yi suuf ne ko man de ni ma yàlla def rekk sant naa ci gërëm naa ko ci noonee suuf toroxloo nag moo tax yàlla def ko muy wecci njàpp muy wecc laabu ndox rek ci gàttal nga xam ne kuñ digaloon sangu farata mbaa jàpp te amoo ndox mañ koy defee da ngay daal di tiim ci suuf si rek mu daal di wecci njàpp ma mbaa cangaayal farata la nee nañu nag ku bari alal ba noppi woyoflu lu jafe-jafe la bu ñu dee lim yi jafe-jafe dañu wax ne juróom la bi ci jëkk mooy boroom xam-xam bu dëddu àdduna fekk na sax bu dee boroom xam-xam dëgg moom faw mu dëddu àdduna ndax xam-xam daanaka mi ngi tàmbalee ci xam ni yàlla woyefale àdduna ak xam na mu amale solo ëllëg muy àllaaxira waaye nag ku amul xam-xamu dëgg-dëgg googu li ci ëpp dëddu àdduna dana ko jafe ba tey ku dégg fiq dégg shariha bu noppi teewu koo amee tasawuf muy teewu koo sàmmoonteeg tasawuf lu jafe-jafe la ki waxoon léegi muy ko woomal ku barile te teewu ko woyof lu jafe la ku ñàkk bu wér te teewu ko sant it lu jafe la ku bokk ci askan bu baax a baax ba noppi nag taxaw ci sunna di def la ko war lu jafe-jafe la ndax li cëpp day jàpp ne ñu baax ñam bokk rek doy na ko mbaax li cëpp du farlu ci ak mbaax ndax defe na rek bokkam bokk ci ñu baax rek doy na sëkk dañuy wax naa أعز الناس خمسة عالم زاهد وفقيه صوفي وغني متواضع وفقير شاكر وشريف سني ومنه بقنا تي ترخلوغا فدري نغا خم تكبر ريلو حل غني تي اجي ومال جه دل كبري كاي برومو ري بقنا تي ويفلو نك boo gisee ku bari alal te bari la ga tax koo réy nga bañ ko won genn woyoflu ndax ku gëm yàlla dëgg-dëgg yàlla war naa réy fi moom ba nga xamee ne lu bokkut ak yàlla day woyof ci moom ba kon bu gisee ku bari alal te bari la ga tax koo réy day jàgg ci kawam bañ ko woon genn toroxlu ci wax mbaa ci jëf mbaa ci xol te fekk na noonee mu jàgge ca moom bañ ko woon genn woyoflu ca dëgg-dëgg moo di woyoflu ci yooyee jamono kon jàgg ak ñàkk woyoflu fuñ ko diglee moo fa dig woyoflu ku yàlla defal koomu àdduna daal mu tax ko rëy gis boppam dul ko wayaf lul xamal ne jàgg ci kawam ñàkk ko wayaf lul moo di ak wayaf lu waawudda limeef na min jumlatiha ci mboole seen ñoom teggin yi ixlaasu amalina sellal sunuy jëf liman ñeel yàlla mi nga xam ne lëxoo ñeel na ko al asxaasu jëmm ya bokk na ci teggiin jaam bi taxaw temm ci jëpp jëf ju muy jëf ak jëpp wax ju muy wax yàlla rek rek tax loolu moo di sellal sellal mooy jëf ju muy jëf ak lépp lu muy wax yàlla rekk tax moom nag buñ ne teggin la it farata la ndax moom sellal bu àndeeg sàmmoonteeg na shariha diglee mooy tax yàlla nangu jëf ja jëf ju ne dañ koy peese ci ñaari balaas ñooñu muy dëppoonteeg na shariha rëdde ak def ko ngir yàllay kese loolaay tax yàlla nangu jëf ja lëxoo ñeel na ko la dal xaw mi fa nit ñu baax ña talaasu darajaatin yetti daraja xoliyaa bu gën a kawe wa wustaa ak bu diggu doomu suma duniyaa topp bu gën a suufe bi tabaati ca sax ga sellal moomu nag jëf te yàlla rekk tax dañ koy def ñetti degré am na degré boo xam ne moo féete kaw benn féetiwu ko kaw am na bu féete suuf nga xam ne benn féetiwu ko suuf am nag bu nekk ca digg ba xoliyaahu gën jaa kaweem anta abudahoo moo di nga jaamu ko ijlaalan ngir ak màggal daraja bi ci féete kaw mooy ngay jaamu yàlla di sellal jaamu ga te dara taxut lu may xam rekk ne yàlla day jëmm ju sell sell ju màgg-màgg yelloo jaamu yelloo sopp yelloo topp nga xam ne su yàlla diglewutoon sax ne nañu ma jaamu du tee moom mu jaamu ko ndax xam ak sellam akuk màggam ak yayoo gum yayoo jaamu boobu nag moom moo féete kaw nga xam ne sax boo ko dee seet da ngay defee ne ku mel noonu amut waaye boo ko seetloo ci sunu taalibe gii nga xam ne moom lañ doxalee suñ digganteeg sëriñ bi rek danga ko ci mën a misaale cheikh ibra fall yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer moom sopp sëriñ bi rek ak bëgg koo teg kem kàttanam fa ko yàlla teg rek moo ko taxoon di def lépp lu mas a def digganteem ak sëriñ bi du bëgg àjjana du ragal sawara ndax nee nañu sëñ bi rëddoon na aw rëdd ne ku jéggi rëdd yii fekk ma fii ma nekk dem sawara ku dikk da ngay taxaw doo ñemee jéggi rëddoo fekk sëriñ ba fa mu nekk ba Cheikh Ibra Fall ñëwee laaj ñu ne ko moom day daa wax ne rëdd yi ku ko jéggi fekk ko fa mu nekk dem sawara dafa ñaaj ak doole jéggi rëdd wa fekk sëriñ ba fa mu nekk mu ne ko lu tax ma ne ku jéggi rëdd yii fekk ma fii ma nekk dem sawar nga di ko jéggi Ibra Faal mu ne ko man bëgguma àjjana rëgaluma sawara yow mi rek laa bëgg wustaahu gën jaa diggoom nag anta abudahoo moo di nga jaamu ko imtisaalan ngir topp ndigal degare bi nga xam ne moo nekk digg bi kawewul ne bee nga weesu suufewul ne bee nga bëgg a wax mooy ki nga xam ne day jaamu yàlla ci kaw xam ne moom kat ab jaam la boo xam ne yàllaa ko sàkk te yàlla moo digle ku ko jaamu tax rek nag mu di ko jaamu li ko wutalee kee nga wees nag mooy moom bu fekkoon ne yàlla diglewut ku ko jaamu topp ndigal bàyyi tere moom loola du ko ci fekk daa jàpp rek ne ab jaam la bu yàlla sàkk ab jaam nag bu ko ab sangam digalee war naa jëfe ndigal la bu ko teree war naa bàyyi tere ga waaye moom nag ragal sax sawara mbaa bëgg àjjana taxu koy def la muy def topp ndigal rek la ci jublu nga xam ne kon bii ci digg bi ak bee nga weesu ñoo yemoo ci amu ci kenn kuy jaamu ngir ragal sawara mbaa ngir bëgg àjjana waaye nag kii nga tollu moom bu fekkoon ne yàlla digliwut ku ko jaamu moom du ko jaamu kenn wees nag moom na mu xame sellug yàlla akuk màggam daa tax bu yàlla digliwutoon ku ko jaamu itam moom mu di ko jaamu duniyaahu gën jaa suufeem nag anta abudahoo moo di nga jaamu ko xubba sawaabi ngir sopp ab yool ka jannati naayimi niki àjjanay xéewal ga aw dafal xiqaabi wala ngir jiñ mbugal daraja bi gën a suufe nag mooy ki nga xam ne day jaamu yàlla rekk ngir ragal sawara ak bëgg àjjana kooku mooy daraja bi ci gën a suufe ba tax yàlla waxan ca alxadiisu rabbaani ne waman abdulamu mimman abadani xawfan min naari wa tamaan fi jannati law lam axluq jannatan wala naaran alam akun ahlan li an utaax mu ne ana ko gën a tooñ gën a wàcc yoon wa kii nga xam ne jaamu gi may jaamu ragal sawara rekk ak bëgga dem àjjana képp moo tax mel ne su ma sakkutoon àjjana ak sawara duma yelloo kenn jaamu ma loolu tax ñu ne daraja bi gën a suufe mooy di topp yàlla ngir rek ragal sawara ak ngir dem àjjana waaye nag yàlla ci coobareem moo wutale nit ñi li ëpp ci doomi aadama yi ci daraja bu suufe boobu lañu nekk wayu arafu def na xam minhu ci teggiin arraja yaakaar waxoo moom yaakaar nag al amalu moo di yaakaar bi axdi asbaabin ànd ak jàpp ay sabab bi iksaaril xamali ci baril jëf ju yiw bokk na ci teggiin yi yaakaar yàlla sa boroom li jublu ci yaakaar gi nag mooy nga farlu ci lépp lu mu bëgg nga di ko jéem ba noppi nag rafet njort ci ne dana la gërëm nangul la saa yu jaam bi saxee ci jëfe ndigal bàyyi tere kem kàttanam rek na rafet njort ci ne la yàlla dige ci gëm ak topp dana ko am la yàlla tëkkoo ci weddeeg mooy dana ca mucc amal lës yi ndaal ka nga xam ne yatruku dana bàyyi al asbaaba sababu ya jamihan mboole seen daa ragabatin mbir mi boroom ak xemem fa huwa moom al musamma mooy ka ñi tudde bi tamooxi ci ab xemmemaa kon wala ci ab bëggewaa kon rajaa uhu yaakaaram nga yudduxaa def na ko wooye at tamanniya réere mébét faqat dong id ngir xarraxoo war na ko kasaluxoo tàyyalam nga xataa saqata ba mu rot mooy ba mu daanu kuy xëtt ndigal waaxu di def la yàlla tere ba noppi nag rafet njort yaakaar ne lu yàgg-yàgg bu ëllëgee day mucc rek yàlla yóbbu ko ajana ndax yàlla yërmande moom weesu na muy fayonteekub jaamam loolu moom ak bëgge la akuk reere mébét ak bëgge mooy di yaakaar loo xam ne mën naa am mën naa bañ a am te it ak ñàkk amam lañ gën a foog ku def noonu rek topp na di reere mébét tàyyeel ci wut lu baax ba far rek ñàkk lu baax fii ak fële wal xawfu ragal ga wal xusnu ak jàq ga li jëxlil amri ngir réere mbir ma yoo àddu def na ko lim min jumlatiha mu bokk ci mboolem teggin ya fal tadri na nga xam dafa waxan léegi rafetug yaakaar mu boole ci alxawfu ragal mbugalum yàlla ragal ak yaakaar dañuy yaar yoo xam ne moom la jullit bi war a def yaari laaf di leen naawe yaakaar mooy taxaw temm ci di def lu baax te yàlla tax te rafet njort ci ne li mu digle ci kuy def lu baax te jëmmam tax te mooy ngërëmam ak àjjana danga ko am bu ëllëgee ragal nag mooy ngay moytu lépp lu yàlla aaye te yàlla rek tax nga bañ koo jege te jàpp ne bu ëllëgee la mu daan tëkkoo ci ku def lu mu tere yow da nga ca mucc yooyu yaar nag muy yaakaar yërmande yàlla ak ragal mbugalam faaw rek na leen jaam bi di boole ndax bu yaakaar ga ëppee day tax mu néew jëf ju yiw bu ragal ga ëppee itam jàpp ni ëllëg moom du mën a jaar fenn ba mucc loolu naa ko yërmaande lay doon te day tax ba tey mu ñeme mooy yàlla yi ndax day jàpp ne dagam moom ëllëg du mucc lu ko raw fii rek raw na ko ba noppi mu daal di ñeme lépp lu yàlla aaye te du sawarati ci la yàlla digle bokk na ci teggin itam moom jaam bi lu mu farlu farlu muy jàq ci ëllëgam ndax ndegam yàlla moom daa waxam ni ñii àjjana rek lañuy dem sama yoon ñii sawara rek lañuy dem sama yoon te xamul moom fu ko ci yàlla féetale ndax yàlla ci coobaram rek lay jëfee ndax yàlla def gi mu def muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu gën ci ñim sàkk di dem ci àjjana ja nga xam ne moo féete kaw ci àjjana yi def iblis ak ay gaayam ñu ñàkk yërmandeem faw dem ca kërug sawar ga gën a tiis mënistu wax ne muhammad laata ko yàllay sàkk la defoon la tax yàlla may ko loola mbaa iblis ak gaayam laata yàlla di leen sàkk lañ defoon la tax yàlla féetale leen foofa ci këru mbugal ga kon yàlla loo seen rek jëfuma te coobaram rek lay jëfee kon jaam bi lu mu bari bari ak rafetal jëm ci boroomam te yàlla tax bu mu tee rek nay jàq ak a tiit ngir alaxira xamut lu di ak mujjam moo tax addis ba ne inna allaha yuhibbu kulla qalbin xasin yàlla day sopp bépp xol boo xam ne day tiit ci digganteem ak boroomam bu ëllëgee ca alaxira kal xusnu xalal axirati maanaam tiit ak a jàq ci lu aju ci alaxira moom la ñuy tagg waaye alxusnu xalaat duniyaa nag moom di jàq ka tiit ngir daray àdduna lu ñu war a moytu la lu ñu ŋàññ ŋàññ la was sidduku dëggal ga yoo àddu def na ko lim min xaa mu bokk ca teggin ya war ridaa ak gërëm ab dogal maxat taf yi di ànd ak joyal mbir jëme ci yàlla laata da bul bàyyi xor yi di sama way bokk na ci teggin yi jaam bi amuk dëggu amuk way ci lu baax di sax ci def lu baax di ko wax te yàlla rekk tax lépp lu muy wax muy dëgg ci moom lépp lu muy jëf muy dëgg ci moom boole ca gërëm lépp lu yàlla dogal xam ne yàlla moo amee sañ-sañ te lu ko soob rekk lay def muy jéem nag lu yàlla dogal rek mu gërëm ko jël mbiram yépp itam féetale ko ci boroomam xam ne moom mën na ko caa sopp xandikul na gën ca moom mu féetale ko mbir yi nag ñaan ko mu defal ko ci mbir yi la gën ca moom loolu lépp teggin la min fu bokk na ci teggin al muraqabatu fugloon teeg yàlla watta an nii akuk teey kazaliki nii alqanaahatu doylu bi rabbi sha'ni ci borom mbir ma bokk na ci teggiin li ñuy wax almuraqabatu muraqabatu mooy bàyyi yàlla xel ba foo toll rek xam ne moom boo ko gisutit mi ngi lay gis te mi ngi ne jàkk sa biir ak sa bitti moo tax ñu wax naa almuraqabatu mooy dawaamu ilmil qalbi bittilaahillahi taala alayhi ilman laaziman lil qalb wa man alima anna allaha taala muttalihun ala damair aalimun bissarair ilman yaqiniyan xaraja ila almuraqaba xol bi xam bu wér ne yàllaa ngi ne jàkk ci moom ne jàkk ci cër yi di xam biir ak biti ci lépp lu aju ci jaam bi loolu bu ko jaam bi wóoloo faw rek mu taqoo bàyyi xel yàlla ba di moytu lépp lum bëggut tey jéem la mu bëgg bokk na ci teggiin muy amuk teey akuk teewlu ci mbir mu ne bala caa dugg xam la ca lislaam wax mu door caa dugg nag ànd ak yéene ju sell yàlla rek tax waaye gaawantu ak yàkkamti waxoon nañ ci gannaaw ni nga xam ne moom la mën a yàqale jaam bi ak ni mu ko mën a xañe yiwu àdduna ak wu alaxira bokk na ci teggi nit mu doyloo la ko yàlla cërale maanaam mu wóor ku ne kenn ku ne am na lu la yàlla sédd muy sa cër boo xam ne moom xir du tax nga am lu ko ëpp mu xam loolu nag doylu sëkk ci la ko yàlla sédd sant yàlla loolu teggin gu rëy rëy la wa minhu bokk na ci teggin tatxiruka sag laabal imaanan gëm zahara goog feeñ na bi maa i tawbatin ci ndoxum tuub ila rabbil bashari jëm ci buurub mbindeef yi wa bil xalaali ak ci taqoo lu lew maxa saq yi ka ànd ak sag suuxat a shajara garabu gëm ga bóobali taaxatin ci waameew topp yàlla wa saxin ak jëf xadd zahara joj feeñ na bokk na ci teggin gëm gi la yàlla xéewale ci coobaram rek ndax loo gis mbaa nga dégg ko ba tax nga gëm rek am na ko gis dégglu ko ëpp te taxut mu gëm mooy xéewal gi gën a rëy ci xéewali yàlla xéewale jaam ñi gëm googu nag bu fekkee dafa am lu ko tilimal te mooy nga def ak mooy na nga taxaw temm ci jéem koo fóot moom gëm googu laabal ko ci kaw rek tuub tuub gu sell dellu ci sa boroom ak it taqoo lekk lu lew ndax nee nañu woon jëmm ji lu mu lekk rek faaw mu jëf lu mel ne moom bu dee lekk lu lew jëf ju teey te sell rek lay jëf bu lekkee lu araam faw mu def lu araam bu lekkee lu lënt faw mu jëf lu lënt bu lekkee lekku caaxaan it faw mu jëf jëfi caaxaan mbaa mu wax ko kon nag taqoo jëfandikoo lu lew moom farata la farlu ci am lu lew ba doo jëfandikoo lu may lu lew farata la ci jullit bu ne mu ne it gëm gi daa mel ne ak garab gu yàlla jëmbët ci sa xol garab nag dana aajowoo ñu koy suuxat di ko nemmiku waaye bu fekkee ne njëmbët da nga koy jëmbët rek bàyyi doo ko suuxat doo ko nemmiku day daldi bekkoor mën na am sax mu far dee daanu fi suuf gëm gi la yàlla may nag dafa mel ne garab goo jëmbët noonu rek faawu foo toll war nga koy suuxate waamey topp yàlla ak waamey jépp jëf ji yiw joo xam ne ju yàlla gërëm la ci gàttal daal bi la yàlla mayee gëm gi moo gën di baril say jëf te di ko rafetal ànd ak yéene ju sell rek gëm gi gën a yokku gën a dëgër waaye nag moo gën a ñàkk a jëf rawante na di jàdd yoon di mooy gëm googu gën di woyof ba buñ ne garab la guñ jëmbatoon sax mën naa mu dem a dem ba wow koŋ daanu dee mooy xeeti mooy yàlla yi mën naa yóbbu nit ci ak kéefër dañuy wax ne almahaas yi ba yu dul kufur sëgg ci ak mooy nuurti rek toobaay yi moom mën naa yóbbu nit ci ak kéefër gu fis mën naa am itam bu àggee ca war a génn àdduna rek du deexaale lislaam waka salaatika ak nik sa julli ak duxaa yoor yoor wan nadami ak rëccu xinda fawaati taaxatin fa rawuk topp lil mu imi ñeel aji xéewle ja maxa tajan nubika ànd ak sag teet maanaam ànd ak sag sori an kulli sababin walis bépp sabab yuf di ba dana àggale li xaatima ci soo in jëm ci mujj gu ñaaw yu ji tane boog def na ko teet mooy def na ko jéem a sori aha dana yal na nu musal arrahmaanu aj jërëme ji min ha ci mujj gu ñaaw abadan faaw bi jaahi sayyidil baraaya ci daraje sangu mbindee fi ahmada te moo di ahmad alayhi yal na doole nekk ci moom afdalu salaati ngën ci dolli teral wa salaami ak dolli wóolu wa alihi ak ñoñam wa saxabi ak ay saxaabaam alxurri ña di ay sang alkiraami ña di way tedd bokk na ci tegg yi nii nga taqoo julli yoor yoor di sàmmoonteeg moom dañ koo fonk lool ndax nee nañu ba addis ba nee kullu sulaama minan naasi alayhi sadaqa maanaam doomi aadama bu ne yàlla defal na ko ci xeeti tengo ñetti téeméer ak juróom-benn fukk yoo xam ne mooy tax doomi aadama cër yi jàppaloo nooy woyof mu mën a soppandiku mën a jëf ay jëf yu yéeme yéeme yoo xam ne dañu koy yéem yonent bi nekkoon nag doomi aadama ji bis bu ne war naa sant yàlla ci xéewal yooyu te mooy tengo yu bari yooyu mu ko defal na fexe ba bis bu ne mu sant yàlla ci xéewamuk tengo yooyu ba def ci xeet yiw lu mat ñetti téeméer ak juróom-benn fukk bis bu ne foofu nag fa la waxe ay yëf yëf yoo xam loo ci def rek mu taxaw taxawaayu saraxe ni ki defare diggante nit ñi jubale leen ak digle lu baax ak aay lu bon ba àgg nag ci ne julli yoor yoor ñaari rakk rekk ku ko def dal lay matal àq yooyu yépp yépp te it julli yoor yoor day taxa bari wërsëg day tax itam sa wërsëg barkeel dañ ne nag yoor yoor lu mu néew néew ñaari rakka lu mu bari bari juróom-ñett juróom-benn nag moom moo nekk ci digg bi daañu sib nag nga sawar ba ëppale ko